pour ñëw maintenant si li jaaj solution wax entre guillemets solution dañu nekk ci état état boobu ñu nekk il faut ñu xam ñu la ci lan la ñu nekk ci ban cadre la ñu nekk lépp loo gis rek dañ koy encadrer état organisation la wax naa ko barki démb c'est organisation organisation sociétale boo xamante ne nii avant muy am amoon na yeneen organisation sociétale amoon na fii monarchie amoon na fi anarchie amoon na fi royaume empire il y avait toutes les formes d'organisation sociétale mais l'État c'est la mieux achevée bu nee buur sàll ñun du ñu neex mais comme li ñuy wax rek dafa am lu bees loo xam ne dafa ñëw ci politique bi lu ñu musul xam. muy lan le niveau est très bas le niveau de communication est très bas. dans les le, deux côtés. le niveau bon pas dans les deux côtés je suis désolé parce que am it affaire yi il faut nga duut ko baax. waa waa APR seen tontu bu ñu tontu waa waa APR seen tontu ñu tontu ne ñoom tamit dañuy wàcc pour riposter loolu du niveau bu baax. non xam nga dafa am ñu dañu nekk si ñaari niveau. nous sommes à niveau étatique loolu niveau baax la non non non non nous boo xamante ne ni foofu duñ fa tontu kenn ci ay détails yoo xam ne débat ban public la foofu gars yi dañuy doxal seen mission étatique. mu am beneen mission politique boo xamante ne nii mais yaa a des y a des y la propagande du parti. y a des instances qui sont chargées vraiment de la vie politique du parti qu'est-ce que vous voulez. le niveau bas le niveau bas lan nga yaakaar ni moo ko andi. mais mais mais ah quand il traite le président de la république de bourg. non bourg ci jëf buur ci ça c'est bas ci doxalin lañ wax. ban ban ban ban ban instruction lay am xam nga suñu toogee fii moo tax ma ne la na yàlla leeral suñuy xel. Mhm. ñu wax luy jariñ luy jariñ réew mi. waaw il faut respecter les institutions de ce pays. parce que réew mi ñun dafa am fu ñu ko fekk am nu ñu ko jëlee. te bu yàlla nangoo ci kattanam quel que soit alpha mu yéex mu gaaw dañ koy joxe. ci nii wala ci nele dafay am. quel que soit alpha dafay am. on ne peut pas rester éternellement. mënul nekk donc ñoom bu ñuy laaj réew mi. nañ ko laaj ci anam bi nga xamante ne noonu lañ ko war a laajee parce que du man maa koy définir du moom moo koy définir nous vivons dans un état boo xamante ne nii ay textes ñoo ñu régir. autorisation de marche marche amul déclaration. voilà amul déclaration amul on ne l'autorise pas mais. déclaration mais su fekkente ne le préfet il a des informations que vous vous ne détenez pas. les services de renseignement ils ont des renseignements que vous vous ne détenez pas c'est soumis à son appréciation mu xool s'il y a menace de trouble à l'ordre public mu auto mu mu mu encadré wala mënu du ko encadré te su ko dul encadré marche bi du am